maa ngi lay fay. waaw sant nañu baax alhamdulilah. Sokh tey day bëre combat capital digganteem ak Franc. Pikine gépp génn boot ko ànd ak moom ma gis mag yu Pikine yi ma gis xale yu Pikine yi ma gis xale yu ndaw Pikine yi sax yéen a Sokh ndam nan ngeen waajee bis bi ak lan ngeen koy yem. xam nga actuellement euh, combat Sokh bi dafa tombeek deux cent pour cent cent pour cent bi nag dafa impliqué ñëpp dix neuf écuries ñooy deux cent pour cent bi. mais maire de la ville moom ci boppam jógal boppam ànd ak équipe ne moom day dooleel deux cent pour cent li waral combat bi nekk combat boo xam ne dafa am enjeu mooy Sokh dafa nekk koo xam ne dafa am passage ci ci lutte simple bi def ci lim ci def ba ñëw dugg ci frappe bi am ñu mu jot a bëreel mais booy xool soq ñi mu bëreel sax Franc bëriwul ak ñoom waaye nañuy xool tey jii est-ce que euh, Franc day wane ni yoon wii ma nekk soq mënuma baare wala ba euh, euh, soq day wane ni man ñii Franc doon daan duñu man parce que revanche par procuration la parce que Tyson 2 ci 200 pour cent bi la bokk. loolu bokk na ci enjeu yi nga xam ni moo tax lamb bi am solo pour pour pour